sëñ Moustapha ni ñu ko tuddee itam nga xam ne moo jiite daara ji ñu dénk ko ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ko ci jàppale ñu leen di nuyu bu baax di leen ziyaare ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp nekk fii ci saal bi mm-hmm. ak mbooleem koo xam ne euh, yaa ngi ñuy topp ak foo ñu mën a toppee surtout mbokki internet yi di leen wax rek ne euh, bu ñu demee ba ca kanam ku am ab laaj rek mën nga koo jaarale fi nga ko doon jaarale ci euh, jumtukaayu xarale yi. Euh, kon ñu leen baax euh, di yi ñëpp di wax rek ni ko Cheikh Bachir wax yaakaar naa leeral na ci lu bare bare jarul di di baamu ni ko daara ji baaxoo defee nga xam ne barabu xam-xam la di barabu daare kaamil jeexal na lépp wala maktaba wala bibliothèque nu ñu ko mën a waxee rek baaxoo amal ay waxtaan ci weeru koor wi waaye baaxoo amal ay waxtaan ci weeru safar waxtaan yu ne Euh, saa su ne dañ koy topp di ko jariñoo bu baax a baax a baax tey jii nag ñu dalal euh, euh, sëriñ Maam moor am di di ko ku baax ku yàlla baaxal di ab gëstukat boo xam ne wax gëstu bu baax a baax yaakaar naa kuy topp kuy topp wax koor gee ak ñu demee noonu da nga gis bu baax a baax ay waxtaanam ayer bu borom xam-xam yooyu di rawdu rayaaxiin eh, di ci liggéey liggéey bu ama am solo ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla àggale ko eh, coono yi nga xam te mu ngi koy daj ngir liggéeyal sëriñ bi yàlla na ko yàlla nangu xëy na jërut ñu koy taarif taarif bu yaatu ndax su waxee rek la waaja waxoon rek wasa taarifu isan jalal xubaaru afarasan taxtaka taxtaka aw ximaaru su waxee Eh, dañu xam mooy kan li ci am solo mooy tey jii mu tànnal nu thème bu am solo di thème boo xam ne wala munaasaba boo xam ne saa bu weeru safar duggee rek xel yi yëpp dañ ciy dem muy màggal Tuuba ñu tànn ko mu bokk ci wala mu doon tem bi nga xam ne moom lañu jëkk a jël waaye mu bëgg koo waxtaanee ci anam goo xam ne dañ ci mën a jariñoo bu baax a baax màggal Tuuba ak yenn dimension la am ci wàllum ruuxiya ak yan dimension la am ci wàllum ijtimaaya mooy yan dimension la am ci wàllum spirituel ndax euh, nit yàlla du ko bindee mu doon koo xam ne day am xol di am ruux di yëg ndax màggal gi am na ay jeexital wala ay dimension yoo xam ne buñ ko dee xool dana am ci wàllum spirituel ak ci wàllum sociale foofu lañu ñu sëriñ Mamoor Mbàkke am di bëgg a waxtaanale Eh, di waxtaan woo xam ne nag dana ko waxtaan ci ay tomb tomb bi muy njëkk a waxtaanee mooy bu ñu waxee màggal Touba luñ ci jublu màggal Touba luñ ci jublu ak cosaan li mooy lan loolu yaakaar naa baax naa xam lool loolu baax naa fàttali su noppee dana waxtaanee historique bi taarix bi màggal Touba fan la tàmbalee ba agsi fii mu agsi loolu tam du baaxa a eh, xam beneen kon bu noppee waxtaane nag eh, aspect ruuxi bi. maanaam al bu'd ruuxi waaw su noppee soo ko waxtaanee al bu'dul yi ci aspect sociale bi wala dimension sociale bi naka lañ koy déggee su noppee dana ko tëjee ci ay tawsiyaat ay recommandations yoo xam ne ay bind lay doon yoo xam ne ko mën a jariñoo euh, ba euh, ñaan yàlla mu may ñu fekkee ak tal euh, ñu fekkee màggal gi ci jàmm te weesu ko lu bare bare bare bare fekkeelu ñu ko at yu bare bare bare